Samba Gaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu ngi lay nuyu soxna si di nuyu Sénégalais yëpp. Euh, ñuy fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal euh, tey euh, kii di secrétaire général syndicat national liggéeykat ak technicien agricole fii ci Sénégal ñu gën ko xamee SYNTAS diiru ñetti fan ngeen fa yéene banque seen yoxo mu dooree mercredi jëm jeudi jàpp ajuma lu waral ngeen namm li ni mel. Ah, Euh, dafa yàgg fii ci Sénégal ndax euh, ñun ay ndaw euh, liggéeyu kotu état Sénégal lañ mm-hmm. comme ni ko enseignant bi nekkee comme ni ko médecin bi nekkee ñu ñuy affecté fépp wu ci Sénégal te amuñ indemnité boo xam ne bii nii buñ la affecté ci ngay mën a sukkandiku pour mën a fay sa amuñ indemnité boo xam ne bii a ah, yow li nga jàng ak lum xarala xarala ak ni nga koy manee ah ñeneen ñi la ko jox ñi indemnité ñu tuddee ko ci seen koor yi xëy na am na tur bu mu tudd mais ñun indemnité de technicité lañ koy wax mu wane ne lii kat sa xarala fii la toll ñu war na koy jox amuñu ko. Mm-hmm. wala suñ ko amee sax ah, boo seetloo ah, pour mel ni waa élevage tey nga xam ne ñoo tolloo birum jàng ñi nekk ay docteur ak yoon. Euh, euh, yéenewuñ yéene nañ leen lu ëpp lu am lu ëpp lu ñu am mais rien euh, seen indemnité boobu day mat ñetti yoon ñun suñu indemnité yi yi nga xam ne moom la ñu jox muy trente mille francs ki nga xam ne moo ci gën a tuutile soixante dix mille francs loolu ci Ablaye Wade la woon bu ko mayoo ki nga xam ne kii ni moo gën a xóot la njàng mm-hmm. di ab ingénieur man soo xam trois cent mille francs indemnité de risque ku ne xam na ne mbay ab risque la ndax ngay defaree jiw boobu balaa ngay góobe wala dexti lépp ay danger la yoo xam ne ni ay tooke la ay terrain la ay matériels yooyu ngay manipuler yoo xam ne lépp mën na la ci dal mhm. ak mission yi ngay def mais amuloo benn indemnité de risque soo accident yi nag yàlla tere a ah loolu si manta dali yaay jéem a toppatoo sa bopp waaye kenn faalewul ah, am na suñuy naataango yoo xam ne dañuy def choc moto am ay fractures yu doy waar mais yàlla def ne ne yàlla dong moo leen sàmm ak seen mbokk waaye kenn toppatoowul leen amuñ indemnité euh, de responsabilité nga xam ne buñ la nommé directeur wala chef division wala laborantin nga xam ne yow yaa yore liggéey boobu mhm. li ci euh, rëq yëpp yow yaa ko war a def amoo indemnité boo xam ne bii nii moom moo ci war a moo ci war a ànd moom nga yelloon loolu nag ca Dieng Mamadou Dia ba léegi la amul lenn luñ fi def boo xam ne bii nii luy wane ne mbay mi kat mu ngi dox parce que boo demee ci service départemental yi nga dem ci direction régionale yi Mamadou Diop moo ko fa tabaxoon bâtiment boo xam ne bii boo foo duggee euh, sa yaram day daw dara baaxu fa amuñ service yoo xam ne yii nii am nañ oto yu doy am na sax département yoo xam ne lu toll nu chef de département nga xam ne commune yi sax boo fa demee léegi am nañ ay oto département ba ñaata département mënul am chef de département ba nga xam ne moo yore mbayu euh, Sénégal bi mm-hmm. mënul am oto mm-hmm. loolu ñu ne ko ministre bi yow Moussa Balde da nga ko fee fekk waaye sa naataango waxoon nañ ko ko mu ne leen ah li ngeen wax noonu jaadu na waaye damay sant benn kuréel boo xam ne bii daf may gëstul li ngeen wax nii fan ngeen ko teg ndax man dama am ay collaborateur mooy samay directeur national am ay conseil technique am ay euh, juriste yu nekk ci sama ministère bi am secrétaire général boo xam ne moo jiite ñu léegi nag moom laa tabb mooy oote réunion ngeen di toog ak moom yéen syndicaliste ngeen indi seen xalaat ñoom ñu indi seen xalaat li ngeen wax bu méngawul ñu ne ñu ne leen méngawul ci leen tabax benn document bo xam ne wane ne lii kat li ñu wax nii waxuñ ko mbir dañu bëgg xaalis bu ñuy def mais dañoo bëgg ne suñu joxee ñaar dërëm man nañ cee def juróomi dërëm suñu joxee fukki dërëm mën nañ ko def ñeent fukki dërëm kon ci wàllu mbay mi wàllu lekk gi fii la war a jaar nii lañ ko war a doxalee ñu ñëpp ñu d'accord si ñu ne kon léegi lii lu mu ay yoloot indemnité yi lay yoloot indemnité bi bu ci gën a mag boo ko ba dajalee yëpp kenn si amut ci euh, téeméeri junne ak ñaar fukk mhm. koo xam ne kii nii sa salaire dafa toll lu doy noonu vraiment war nañ la mën a gestu ah loolu moom pare moom Moussa Balde mhm. jëlul seen jëlul jël document bi yëbbal ko naataangoom Abdoulaye Daouda Diallo ministère finance wax ko ne ko lii kat yow wàllu finance la yow ak ministère fonction publique te parce que ndaw yi ay ndaw fonction publique publique yi ñoo ci ëpp am na ñenn sax ñaar euh, li ñuy tuddee contractuel waaye ñëpp boo leen boolee sax matut junni nit ak ñaar fukk léegi nag loolu soo leen boolee mu ngi toll ci xayma bi euh, juróomi milliards ak juróom benn fukk eh, ak téeméeri million téeméeri million ñaar te wax nañ ko ne ko gis nga rien que eh, gi ñuy jaay bitim réew muy doomu gerte yi eh, nguur gi ren am na ci kilo bu nekk mu teg ci juróom benn dërëm loolu mu ko jural juróom ñetti milliards mu ko moom Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi ko denc ci gaxawaam xëy na xëy da koo bëgg a def fond comme yu muy jox ndawam yi. Ah, monsieur Gaye monsieur tey ci seen mouvement d'humeur bi ngeen euh, def lu ñu duppee rétention bulletin d'analyse ou semence certifiée yi ak it ngeen nam namm boycotté campagne arachidière bi euh, tey ban impact la seen banque yoxo googu am ci euh, liggéey bi. waaw loolu dinaa ci sawar tontu ndax ki ñuy wax secrétaire général. ministère bi génn na léegi wax ci seen rajo bi ne ñun suñu grève bi mënul wàññi dara ci mbay mi ñu ngi koy xamal na nag place moom moom administration la jàng jàngul mbay buñ ko tegee foofu muy war a def administration na yam ci administration ba xam ña xam ne am nañ xam-xam ci ministère bi ci wàllu mbay amu ci kenn ku sëri ku ñi ma génn ne suma agent bi tey grève amalul ma benn gàllankoor ci suma liggéey loolu du wax sax administrateur ndax administrateur bu fekkee ne yow état bi nga fi nekkal nga ne état bi ñi yaag leen di fay waaye suñ liggéey suñ ñàkk a liggéey amul amul benn euh, gàllankoor li ngi leen di fay kon loolu état bi yaakaar da nga na waxal état bi ne leen ñuy dàq leen rek mu jeex parce que amul njëriñ askan bi bu fekkee loolu la bu fekkee ne nag léegi ñuy grève ñu amal na njëriñ askan bi moom lu mu fay def ci ministère bi ministère bu kenn nekkul kay jarul moom mu fay toog moom moo waroon njëkk a def loolu nag dañ ko ko xama rek woon ko na ko yow moom moom nekkul suñu njaatige ñëw moom ministre bi la ñuy waxal ak ministre finance bi ak président de la république mu jiite réew mi. moom ndaw léegi léegi grève bi lu mu yàq ci liggéey bi gannaaw ñetti fan xanaa benn fan jot ngeen évaluer impact bi. yàq li mu yàq ci liggéey bi moo di ne boo démonté te eh, fi ñuy joxe bulletin analyse yooyu nga xam ne ay opérateur ñoo ko war a ñëw ndaw yi jox leen ko. Mhm. parce que directeur bi du ko joxe chef de laboratoire ak équipe ba ña fa nekk ñooy def analyse génn résultat yi jox ko na ko kii mën na jiw wala mënut jiw. Mhm. loolu les heure bii lañ koy joxe képp ku nekk euh, baykatu jiw nga war koo jël jaay ko gouvernement bi gouvernement bi wax na ko yóbbu ko euh, Saalum wala yóbbu ko Bawol wala yóbbu ko maatam wala yóbbu ko euh, Tambacounda il faut nga am kayit boobu kayit boobu kenn du ko joxe. Mhm. il faut aussi. Mhm. aussi ci euh, li ñuy wax euh, statistique agricole maanaam xayma li nga xam ne ni moom mooy mbay mi du si nawet rek lañ koy def mais anam bi yóbbu lañ koy def. Mhm. loolu dafay jooyantil programme yi nga xam yow li ngay tëgg ci programme Kaolack région Kaolack région Tamba région Matam lan laa fa war a mën a def. moo koy def ci ban euh, commune laa koy def commune boobu ñan ñoo ko soxlaa ak ban côté la gën a jooyante ak nan laa ko war a doxale mhm. loolu Euh, enquête agricole yooyu suñu agent yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi nekk ci région yi téye nañ kon xam nga euh, pour mën a waajal nawet il faut nga xam yooyu yëpp programme agricole nekkul lu ñuy sooxantoo kenn du ko fooye parce que nawet pour nga mën koo waajal ba xam nañ ko koy ba mën koy réussir doo xaar ba nawet bi taw ngay ji ne pare naa ci état du doxee nuunu même projet bu sérieux sax du doxee noonu même baykat bi sax du doxee noonu baykat bi nga xam ne moo yore jiwum tee xam na tey ñaata jiwu la am fu mu ko denc nan la koy dencee na fan la koy war a bayee ak bu fekkee ñàkk na ko fu ko war a mën a jëlee ki ko ki war a jox nag certifié buñ ko certifié wul loolu wan moom xamu sax fu muy jëlee ji jiwu léegi kon kay loolu kay du programme. tey jii lan ngeen di reprocher seen ministre de tutelle. lañ koy reprocher mooy de moom ministre bi moo taxawoon woote ne. ah man fekk naa leen ngeen di yëngatu mhm. du lu bees lu mu fa fekk lu mu lu lu lu kere créé mhm. ah, ñëw leen ngeen toog waxtaan ndax dama sànq benn kuréel boo xam ne samay directeur samay conseil technique ñoom ñëpp dañuy toog ci kuréel gi ngeen wax ñu wax ngeen bind ñu bind lu jaarul yoon ñoom xam nañ ko ñun ay syndicat lay waaye ci biir ay cadre ñoo fa nekk ñoom ay directeur lañ ay cadre ay conseil technique ñoo xam ne ñii fu nekk jaar nañ fa munuñ leen leen a nax ci lu ñu ko wax loo xam ne jaaru yoon dañ leen naan hey saa waay li nga wax nii amul mm-hmm. parce que science moom amul naxaate nga naan lii laag laa déedéet un plus un égale deux la amul leneen. science exact dégg nga. Mm-hmm. loolu kon buñ ko waxee ba pare tënk ko ci benn kii jébbal ko ko ne ko lii lañ d'accord ñun ñaari syndicat yi ak sa directeur yi sa conseil technique mu ne waaw d'accord naa ci jël naa ko jébbal ko Abdoulaye Daouda Diallo pour mu jéem a def ci xalaatam ci wàllu finance parce que ci même bu ñu koy def moom euh, am nañ ku ñu wax daage directeur de l'administration et gestion équipement ci wàllum finance la xayma parce que moo yore gafaka bu euh, budget ministère agriculture xam nga kooku kon lu la wax ci wàllu finance mënul koo Mm-hmm. kon moom validé na loolu xam na la ca nekk xam nañ ne li muy wax nii mën naa nekk kon Abdoulaye Daouda Diallo amul benn xalaat bu ëpp kooku lu mu am parce que ñoom ñoom militaire dama fi daal lañ jàng loolu la daas boobu jàng wala mu gën leen koo jàng sax parce que yore na ko ay ati ati at mm-hmm. kon su validé loolu amul leen loo xam ne lii ni mën nañ ko cee génne booba léegi nag yooyuñ ci yàbbuwuñ ci waxuñu ci li ci jëm ñu jàpp ne ñii kat dañoo caaxaanee parce que li ñu waxoon ñii bokk nag li ñuy def moo fas yéene léegi delloo bu mu ca booy ba def def nañ doon def ak moom. tey jii am nañuy rumandaat ne da ngeen dégg ay rumeur ne dañuy am remaniement moo taxit ngeen bëgg def pression ci ministre bi. waaw dama ne xam nga ministre bi euh, Moussa Baldé. Mm. ci boppam du moom lañu ñu yéene mu dem. Mm. ndax dafa am fi mu fi fekkoon muy Pape Abdoulaye Seck ñi doon jëflanteeg moom ci ni ñuy jëflanteeg Moussa Baldé mii Moussa Baldé mii tey buñ demee tamit dana xam. ah voilà dana ah, euh, euh, am ministre bu tudd ministre agriculture ministre agriculture mënta ñàkk ci réew. Mhm. moom mu nekk fi ak mu nàkk fee nekk benn la ci ñun waaye li ñu gënaloon sax mu nekk fi régler suñu problème na moo samp kuréelam moo wax ne li lañ ko bëgg ñu gëstu suñ ko gëstoon lii lañ ko bëgg kon kay liñ koy yéene kay moom mu am résultat waaye ñun mu nekk fi ah wala ñu dàq ko indi keneen de toute façon ministre bi dana am ñun syndicat la li ñu défendre mooy. lu ñu am ak mbay mi nu mu doxee ak suñ secteur bu ñu bu ñu nekk nan la war a mën a gën dundalee Sénégal nga xam ne téeméer boo nekk juróom-ñaar fu ñoo xam ne yëngatu. tey gannaaw ñett fan yi nga xam ne euh, jàpp ngeen ko grève euh, jàpp ngeen ko amal mouvement d'humeur euh, bu ko weesoo lan moo toftal ci seen plan d'action. waaw bu ko weesoo de liñ doon def la ñu rek ndax xam nga ne bulletin d'analyse semence yooyu bu duñ ko joxe tant lii saafara wuñ ko. duñ joxe données statistiques yi nga xam ne aussi mooy tëgg programme yi dootuñ aussi topp li ñuy séddale jiw wa ca euh, fële fañ koy bayee ca suñu mbokki euh, baykat yi duñ topp aussi li ñuy séddale matériel agricole bi duñ topp aussi li nga xam ne nii ni mooy programme yi nga xam ne moom mooy traité euh, ñaanuñ ko yàlla muy sax ak gunóor ak yooyu te loolu aussi diwul la ne da xaar ba mbir mën a këtt na jonn guno yaa gunóor yaa ngay yàq wala sax yaa ngay yàq wala picc yaa ngay yàq nga ne kaay ma jënd naa avion maa ngi bombardé du demeewu noonu technique agricole dafa am da xam fañ koy fañuy fa ñuy nenee fa ñuy fa ñuy juree fa ñuy fa ñuy fa ñuy màggee nga man koo traité balaa mu muy yegsi foofu parce que bu yegsee foofu ab bomb la boo xam ne bi balaa nga koy fa yàq na lépp te ren jii wane na ko lu mat junne hectare te wàllu ceeb bi yàqu na fële ca bare ba kon mbay du lekk loo xam ne da ngay mu ñor tey nga góob tey lekk tey loolu nag mooy wane ne eh, ku xamul mbay waroo cee wax surtout secrétaire général boobu di wax ne grève amul ci impact. kon tey bu weesoo ñetti fan yi mën nañoo jàkkaar wala jàpp ne di ngeen ko tollanti. ah danañ ko tollanti bu baax a baax ndax moom waxoon na ne duñ fi def grève moo préfet bu xam Rufisque ndax moom préfet la. wan ko nañ ko na ko def nañ ko grève def nañ ko nañ ko war a defee de manière responsable bu yàquñ ci dara léegi kon buñ ko diggee ne ko danañ def leneen danañ ko def moom xam na ko bu baax a baax. Samba Gaye secrétaire général syndicat national des travailleurs et techniciens agricoles du Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf madame ñu ngi sant jaajëfal